jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo talaata bu jot ci waxtu bi si seen magasin fo euh, tey di talaata fukki fan ak juróom ci weeru mai euh, di leen nuyu di leen siyaar di ñaan yàlla mi borom jàmm doolu ñu jàmm euh, yàlla mi nga xam ne moo defaat ñu dajawaat toog ngeen toog di ñu seetaan ak mbokk téléspectateurs yëpp à travers le monde ñu ngi leen wax asalaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu di leen sant di leen siyaar Euh, di wax yàlla mi borom jàmm nag yàlla na yàlla dolli jàmm ci réewum Sénégal di wax nag euh, ci émission Roffo bi euh, di yeesal li nga xam ne mooy sunu njaal ci Jules François Bocandé nga xam ne tey ci talaata ji ci lañ ko fas yéene indi fii ci stade Demba wan ko public bi. Euh, ba pare ñëpp xool ko ñu ñaanal ko yóbbu ko Ziguinchor suba nag ci euh, àllarba ji euh, jébbal ko boromam kon ñu ngi koy jaal Sénégal yi ci turu groupe Futur Média le directeur général Mamoudou Ibra Kane ñu ngi koy jaal Sénégal yëpp ak monde sportif bi yëpp kon jë mbokk yi moom la ñuy ubbee seen magazine Roffo tey nag di plateau boo xam ne daañu ñëw ci plateau yu bari ndax tey boo xoolee ci wàllu commercial bi Euh, tey ay signature de contrat rek lañ fi am yoo xam ne ci kanam tuuti daañ ci ñëw ak Baye Sow production moom nga xam ne mi ngi jëm euh, dimanche 20 ci stade Iba Mar Diop euh, ci affiche yi nga xam ne moo nekk sunu kanam mbokku téléspectateurs yi ci noonu tamit ci kanam tuuti daañu dem fa nga xam ne mooy Thiès signature di Diakhaté moom it le 20 te Thiès diggante ki nga xam ne mooy Matar Gueye ak ki nga xam ne mooy commissaire laata loolu tamit daañu ko jéexale ak Taïga production signature bi nga xam ne defoon nañ ko fële ci Rufisque ak euh, le maire Badara Mamaya Sène mu am fa affiche bu mag boo xam ne le 19 la di leen wax ne euh, dina nekk en direct ci seen télévision Futur Média samedi ak euh, li nga xam ne mooy tournoi ëllëg si kon mbokku téléspectateurs yi ci noonu nag la ñuy duggee ci seen magazine Rofo ànd ceek partenaires yi nga xam ne ñoo accompagné Baye Production ki nga xam ne moo fi teew tey di Astou di Madame kamara Euh, groupe Almadina euh, moom la fi teewal moom it ànd ak Baye Sow production fas yéene ñu ñëw tey ci li nga xam ne mooy signature contrat bi nga xam ne moo war a am ci diggante trompeur ak ki nga xam ne mooy kati numéro 2 euh, ñàq jariñu war ci daje ak Bouba Fit ki nga xam ne mooy feu war ci daje ak Mame Balla ak yeneen ñaari combat yoo xam ci kanam dinañ ñëw ci affice boobu euh, ñoom muy juróomi combat yoo xam ne le 20 ci stadium Iba Mar Diop ak programme yi nga xam ne moo sunu kanam di leen fàttali ne le 20 ca Tëngéej euh, tamit euh, lébu gi production Pala Mbeng moom it dana fa am li nga amal la nga xam ne moom la fi defoon muy course ak li nga xam ne mooy lamb moom lay jumelé. suñu bëree benn combat dawal benn course fas euh, defoon na ko bii tamit édition bi dellu siwaat di ko def ci Tëngéej moom Lebu production euh, loolu tamit daañu ci ñëw ci biir programme bi mbokku téléspectateurs yi di ànd ak ki nga xam ne mooy sunu sponsor officiel di euh, Samsung di préparer li nga xam ne mooy combat du 27 ak Aziz Ndiaye production muy diggante Ama Baldé ak Guy gi te xam ne loolu Aziz production daf ci teg benn oto boo xam ne ku gagné da nga koy yóbbuwaale ànd ceeg Samsung sunu sponsor bi nga xam ne mooy sponsorisé euh, Rofo euh, ci yenn magazine euh, kon mbokku téléspectateurs yi dañuy ubbi ak sunu sponsor ci combat bi nga xam ne mi ngi sunu kanam waaye laata loolu dañ leen di indil combat bi nga xam ne moom la guy gi ak bazooka bëre woon buñ ci jógee seetaan Ama ak ki nga xam ne mooy fëgg la ñu dem seetaan ni pla combat yooyu. dellu siwaat ànd ceeg seen sponsor Samsung nga xam ne mooleen may seen magasin Roffo Badou Ka guy gi Badou Ka ndax du tenni ndengeñ bi wàcc ñu bëri ji ci suuf ndax guy gi dina ko may loolu ndax su ko defee guy gi du rasu mbaar ko mbëpp ci kawam ndax du ko kal dawale ko ndax guy gi du teggi bu boobaa wañ ko mu nelaw parce que wàcc na léegi mel ni kuy laal tànk yi guy gi xañ ko guy guy gi jël na tànku bazuka kal na ko ko comme ca xabal guy gi na guy gi guy dëpp na Hey, dama dama. Euh, jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu seetaanee combat yooyu nga xam ne euh, sunu sponsor di Samsung fa seeni ànd ak Aziz Ndiaye production le 27 mai ci stade Demba Diop muy combat yu mag yoo xam ne Samsung dina ci ànd ak Aziz Ndiaye production combat yooyu nag boo ko gisee dañ ciy greffé ay combat mooy li ma doon wax ci lamb ji coow lay ba léegi mi ngi ci lamb ji diggante Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu sen ku ci ne. am na foo tollu sa morom waaye dama ne ku ci ne cerse moo la génn ci làmb cerse boo xam ne ah ñu ngi koy topp ndànk-ndànk parce que làmb ji mi ngi ci recomposition recomposition ginnaaw bi nga xam ne Balla gay daan na Yékini euh, daan Baboy daan Tyson Eumeu seen aussi daan Balla gay daan Gris Bordeaux daan Lac de Guiers numéro 2 kon ñoom ñaar ku ci ne dafa am loo def euh, ba mën a ñëw fii parce que boo xoolee euh, palmarèsu Balla Gaye da ci gis Yékini mi nga xam ne 15 ans laalu suuf boo demee ci palmarès u Eumeu Sène da nga ciy gis Balla gay mi daan Yékini gars yi coow li foofu la ne làmba jooju dafa bari lu bari loo xam ne moo laxasu ci biir muy Eumeu seen di Balla Gaye ku ci ne da nga am mérite ci li ngay def Balla Gaye moo daan ñi fi manoon Eumeu seen ñëw daan ko ku ci ne nekk ci benn tiercé boo xam ne koo tegal palmarès mënu ko weesu kon ñoom ñaar mi ngi sunu kam ñu ngi koy suivre waaye Bombardier Tapha Tine nañ ci bàyyi xel moom it dafa bëgg a ñëw pour doon quarté affaire bi course la boo xam ne defe naa ne làmb ji mu ngi jëm su recomposition Gris Bordeaux Modou Lô ah ma nga ca biir loolu yëpp ay combat la yoo xam ne euh, euh, euh, day fekk si combat ball Gaye Eumeu Sène si bu waree am cek su lay dog cek su lay dog yi dañ ci bàyyi xel ñaari luur lañu te dem nañ ba xam ne dañu war a bokk kon ñoom ñaar Euh, seen combat nañ ci bàyyi xel euh, diggante guy gi amaa Baldé wax naa leen ko vingt 27 la waaye la laxasu Lac Rose ama neex dafa dugg ci biir Baol production war ko amal euh, di wax ne Lac Rose ama neex jàkkaarloo bi le juin la ci diggante Boy Baol moo fay bëre ak Sangu Njaan loolu di drapeau Salam Diallo yaakaar naa ne Baol dina ko gën a confirmer diggante booy Niang ak Zos kooku Gaston production moo ko amal ba pare teg ci encore. Sa ak Moussa jum Sa Thiès Moussa Dioum moom it day combat boo xam ne boo xoolee ñeenti affiche yi euh, bu ci ne buñ ko doon toj mën nañ fee toog ba émission bi jeex parce que lu ci ne combat la ba boo koy jël ba fin bi parce que recomposition arène bi dafa ñëwaat ci côté boobu génération quatre-vingt euh, quatre-vingt-dix-sept ba deux mille defe naa ne ah xale yaa ngi leen di jéem a génne làmb ji diggante deux mille ba deux mille quatre ñoom ñooy riisu ak xale yi diggante mooy ay Gris Bordeaux mooy ay Eumeu Sène 2005 jëm suuf mooy ñoom Balla gay ñoom Lac de Guiers 2 xale yooyu ñoom Tapha kon defe naa ne étape boobu ci la ñu toll ci làmb euh, kon ñi ngi jëm ci fin saison bi bu ñu jeexalee mais juin moo ci des juillet bi duñ ko jeexal ndax koor gi def ci dugg kon mbokku téléspectateurs yi loolu moo doon li nga xam ne euh, sunu sponsor officiel Samsung euh, indiloon nañu ko ci li jëm ci diggante combat Ama Baldé ak. guy gi euh, le 27 mai ci stade Demba Diop mbokku téléspectateurs yi euh, gannaaw loolu nag dañuy dem ba géejawaay euh, ki nga xam ne mooy fans club bu Balla Gaye doxoon 400 kilomètres ñëw félicité Balla Gaye Balla Gaye recevoir na ko ci géejawaay ñu dem seetaan leen ñoom ñaar naka la ko Balla Gaye accueillir ak mbégte gi mu ci am. ñu ngi lay sant bu baax di remercier àdduna moom lii rek moo ci nekk bëgg nit dafa métti loolu. donc ñu ngi lay félicité mu mel ne ndam li yow yaa ko moom mais danga ko bokk Casamance yëpp mais rawatina yow li ñu ci def sa devoir doy na waar da ci am mbégte da ci am eh, dem kontaan bu baax kalaas bu mel nii rek mooy que buy bëri war nga xool ci ñoom ndax dox diggante Casamance ba fii métti na métti na méttiwaay ba fu mu yem kon dañuy ñaan yàlla yàlla dañu suturaal ñu am ndam tout le temps mu gën si ñun aussi tamit ak ñi nga xamante ne ñooy supporté Balla Gaye numéro 2 ak ñuy sonn ci moom ak mbooloo mi jullit ah, ñu ngi lay remercier nag ci affaire bi ñu ngi am contenté ci affaire bi ñu ngi am tamit aussi toog ak yow di ci am fierté bu baax di ci am mbégte pour toog mën a wax soulager mën a toog waxtaan en tout cas ñu ngi remercier ñëpp franchement kontaan nañ trop aussi le remercier bu baax a baax a baax di nuyu say frère say grand frère Paul. ci am kontaan te aussi di fi nga jógee tamit muy Casamance di nuyu ñëpp ndax ñun ñëpp ñoo ko bokk ah, ak mboolum jëriñ. maa gën a sant yàlla kontaan naa loolu parce que daa mel ni kontaan bu ma yëkkati Casamance depuis bis ko combat bi guram la ma fekk maa doon napp corvette mais bisu am combat bi mbette boobu tax na ma ñëw tàggoo sama jabar ma ne ko man daal damay dem mission ndaxte ndam bi euh, fu ma dem féliciter le roi des arènes. Euh, di ndam Casamance la ndam Sénégal la moom mooy yëkkati kontaan naa loolu tey kay kontaan na ba kontaan ba fu mu yem ndaxte sant naa yàlla ñaan naa yàlla ma yegg jàmm toog toogaat jàmm euh, gërëm population Casamance surtout Sédhiou waa naturel. jërëjëf euh, mbokku téléspectateurs yi ginnaaw bi ñu demee waaye Balla gay ak fans club am bo fansam boobu nga xam dafa jógee ba Sédhiou fa doxoon 400 kilomètres. Euh, def fukki fan ak euh, benn ci yoon bi euh, pour sagal ko Balla Gaye mbégte la ci am moom it xale boobu ñu ngi koy félicité di ko ci gërëm di gërëm waa Ziguinchor yëpp waaye ki nga xam ne mooy sunu correspondant rajo Futur média Bakary Konté ñu ngi ko ci gërëm ci liggéey bu rafet bi nga xam ne moo ko ci liggéey kon mbokk téléspectateurs yi dañuy dellu soit dem nag ba Thiès ak si di Diakhaté production mi nga xam ne moom it le 20 ca Thiès Euh, amaloon nag signature contrat ci diggante ki nga xam ne mooy commissaire ak Matar Gueye di drapeau Modou Khoule di opérateur économique di sunu xarit di ko xam ne kii euh, la mu tegal mbër am na solo ku daan dina la may terrain Ndakaaru ki ñu daan ñu may la terrain sa Thiès Y'a ces lions noirs, y'a ces lions noirs. dimanche 20 mai muy dimanche bii di ñëw ci stade la ñu war a defee combat boobu nekk na bis boo xam ni grande journée de lutte la tey nag Ousmane Sarr ak Modou Khoule dañoo ànd ak délégation yoo boo xam ni délégation bu takku la ñoom yaakaar naa ne bu ñu jëlalee seen bopp kàddu dinañ ci egg mais nag man dinaa ci seppi sama xarit sama doomu ndey un artiste talentueux je aadama nomme Adama kon nag vraiment Modou Khoule maa ngi lay gërëm di la sant ah Ousmane Sarr maa ngi lay gërëm di la sant ñoom ñi ngi ànd ak seen i soxna loolu wax naa la ñoom incha allah ci kanam dinañ ci dugg ak délégation bi ñu àndal. bis boobu Sidi Diakhaté mi ngi invité les grands champions rawatina nag ku mel ni Balla Gaye numéro 2. Balla gay numéro 2 fas yéene nañ ko invité incha allah yónnee nañ ko lettre yi. te bëgg nañu mu ñëw fii pour ñu defal ko fi décoration bu mag a mag a mag ak yeneen mbër yi nga xam ne invité nañ leen bis boobu incha allah. Ah, eh, eh, moroom ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ci turam ak santam ah kontaan nañu daal bu baax lañ mën a wax ah. te suñu sëriñ dafay wax ni ñett yi koo ci joteel yaa ko tooñ muy wax ni koo xeebal bisam rekk yaa ko tooñ koo xeebal soxlaam yaa ko tooñ te koo xeebal sëriñam yaa ko tooñ sunu sëriñ dañuy faral di dénk yi dinañu moytu yooyu a ah siiri nag dañu defal li nga xam ni dafa mag parce que ñun doomi waa Thiès lañu suñu defalee li Thiès ñun dañuy war a taxaw jàpp ci ginnaawam taxaw ci guddi ak bëccëg di ko jàppale parce que Sidy problème mooy Thiès ak doomi waa Thiès ak du sagal Thiès yéen war ngeen xam ni lii may wax du politique du dara Sidy loolu la bëgg tey loolu la bëgg ëllëg te du tey c'est première fois yàgg na taxawal waa Thiès bëgg sago waa Thiès ñu ngi gërëm itam njiiti réew parce que njiiti réew toujours bopp gaal la bu ñu nekk ci suñu gaal dañuy am sëfoor te yàlla du fi def ñaar kenn la fi teg ki fi yàlla teg yàlla na ko yàlla jàppale ak ñi mu àndal ba yenn bu woyof ci moom bu baax a baax ci barke Serigne Babacar Sy